asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk julli ñi mbokki groupe whatsapp soppe Seydina Alassane Salam maa ngi leen di nuy bu baax di leen fas yéene indilaat ñaan gu bàyyi ko ci suñu sëriñ bi Seydina Alassane salaam mu di ñaan gi ngeen di gis ci affiche bi mu tàmbalee bismillahi rahmaani rahim jota cha xa mata wa hudan jamial lakka midaadan fatama shaadi nii la ko sëriñ bi daan bindee yow mi koy xool fexeel nga bindee ko nii takk ko wala nga mokkal ko ndax sëriñ bi nee na képp koo xam takk nga ko mu ne ci yow wala nga di ko wax nee na suñu borom dana la muccal ci accident nee na it képp koo xam te ni yaa ngi koy wax wala nga takk ko di nga mucc ci feebar polarisé ak lii olof tuddee feebaru njëddeer tubaab bi di ko tuddee malaise nee na suñu dana la ci muccal li ñu leeral ci kàddu ginnaaw gi nag mooy eh, ñaan gi ngeen gis sëriñ bi daan na ko jox kilifa yu bari ñu koy bindal seen njaboot. daana def it ku mu gis nga xam mu xam ne jàng nga dalay lay wax ne la bind ko te yàlla rek tax nga tasaare ko ba képp koo gis nga fexe mu mokkal ko di ko wax wala mu bind ko takk ko ngir ñëpp mucc ñi xam ne ne Serigne Assane Salam it yërmande yàlla la woon ci kaw suuf rahmatan la woon tamit lil alamin ci àdduna bi yëpp lim daan def yëpp yàlla ak sant mu daan ko def daan dimbali jaam ñi ci xeet xam-xam yi ko yàlla su moom daan wax mu koy tasaare ci jaam ñi bokkoon na ci lii incha allahu rabbi lépp loo xam te ni bàyyi na ko fi tamit njariñ jullit ñëpp danañ ko tasaare ba ñëpp jot ci di ñaan képp ku jot euh, euh, kàddu yi wala mbind mi jariñoo ko tey ñaanal sayyidina asan salaam su moom yokk leeram taas ci barke asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen mbokk aadama salaam